Euh, mi ngi aju ci mi ngi aju ci euh, euh, safar wi dundal mi ngi aju safar wi dundal weer wi bis bi ni nga xam ne sëriñ bi bëggee gan ñi nga xam ne invité nañ leen nag ak kilifa yi ñu fay yëpp ñu ngi leen di tatagal di leen wax marhaban ahlan wa sahlan ngi leen dal ci jàmm bu ko defee ñu mën a tàmbale waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi leen di nuyu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaanal sëriñ muhammadinil muntaxa bachir suñ boroom defal ko fan wu gudd ak wér-gi-yaram dëgëral ko kàttanal ko ba li nga xam ne yéene na ko lëggéeyal lislaam bi ak askan wi mu jàppandi ci moom di nuyu bu baax a baax sëriñ Murtada Mbàkke moom sëriñ Saalex ak sëriñ Xabibu Jóob mi nga xam ne moo topp ci moom ñu nekk kilifay jataay bii nga xam ne ak barab bii nga xam ne ci la nekk di nuyu bu baax a baax sunu mbokk maam Cerno Taal mi nga xam ne yàlla def na moom mooy coordonné liggéey bi ànd ceeg ñoom sëñ Abo Kebe ak mbooleem mi nga xam ne rek ñoom ñoo ci jàpp bu ko defee xam ngeen ne lii mooy ñaareelu jataay ci jataay yi nga xam ne dañ ko baaxoo amal ci weer wi nga xam ne moom mooy weeru safar di weer wi nga xam ne sëriñ bu mag bi waxal na boppam ne tonowu wala bénéfice bi nga xam ne moom lay amee ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu feeñ la lu fés la te weer wu nekk it li ko dale muharram ba zul xijja tonowu googu wala bénéfice boobu day yokku waaye nee na bu ñu ñëwee ba ci weeru safar nag nee na yokkute loolu moom day gën a fés rabaxiya fi iqdaami xayril wara bada wa fi kulli shahrin zeydu ribxi wa fi safar bu ko defee mu nekk loo xam ne ak sant yàlla la ci lépp loo xam ne lu yàlla daganal la rek rumtu shukur allahi dil jalali min talsasin bi dikri wal xalaali mu bokk ci niñ koy sant le yàlla nag muy jataayu xam-xam yi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci dëkk bi di Touba ak lu war dëkk bi bu ko defee sunu jataayu tey nag euh, mi ngi jëm ci tomb bu am solo boo xam ne néewaa nañu di ko waxtaanee te mooy euh, li ñuy tuddee diplomatie diplomatie ban taxawaay la am ci tasaare li nga xam ne moom mooy wooteeb sëriñ bi maanaam wooteeb sëriñ bi di almuridiya li ñuy tuddee diplomatie ban taxawaay la am ci tasaare ko diplomatie nag euh, incha allahu waxtaankat bi bu ñëwee dana ko leeral bu ko defee ki nga xam ne moom mooy taxawee waxtaan woowu mooy sëriñ bu Bousso Xasan sëriñ bu Bousso Xasan nag mboolem ñi nga xam ne miin nañoo teewe jataayu xam-xam yi ci dëkk bi yaakaar naa nekkatul ku ñuy présenté ndax yàlla def na ne ci dëkk bii di Touba. bokk na ci boroom xam-xam yi lu gën a ràññee kuy topp jataayu rawdu rayaxiin di topp daairatu ansaaru diin al islaami di topp muxaddimatul xidma ak barabu waxtaanukaay yu baree bari da ko faral di gis foofu muy def ay tomb yoo xam ne tomb yu ama am solo la nekk tomb yoo xam ne yi tomb yu raar la nekk yi directeur institut al azhar bi nga xam ne mooy excellence bi nga xam ne moo nekk fële ca garas daaru bu sëriñ Mbàkke Buso kon sëñ Fallou ñu ngi lay dalal bu baax a baax di la tatagal bu ko defee di la bàyyee kàddu gi incha allahu nga ñëw ak ñun ci tomb bi bu ko defee dañuy bëgg rek incha allahu buñ jullee timis rek jataay bi mën a jeex bu ko defee kenn ku ci nekk mën a dellu ci say soxla ndax euh, jamono màggal lañ nekk ci xaw naa xat lool bu ko defee incha allahu kon ñu jox sëriñ Fallou di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñuy dégg suñu kàddu noo ngi nuyu ñëpp du nokkee ñëpp ci weeru tedd bi ñu nekk di weeru safar di ñaan soo ba àgg ci fukki ak juróom-ñett te man koo jooxee ni borom bëggoon ko ko jooxee de cee daje cee ngërëmam di nuyu oustaz suñu ma jàmm bu baax a baax ci laytaay bi nga laytaay waxtaan wi di nuyu bu baax suñu abi mi nga xam ne nii moo ubbi jataay bi waaye mu jàll jàllale ci al imam Cheikh Mouhamadul Murtada moom sëriñ Saalihu di ko nuyu di ko ziar di nuyu sëriñ Soxna bu ak maam Thierno ñi nga xam ñoom ne saytu liggéey bi ni nga ko waxee nag sëñ Madiama te ñu ngi waxtaanee ci taxawaayu diplomatie te saareem ci njàngalem sëñ bi mu nekk ci misaal wala boog taxawaayu ni ñuy saytoo ay jokkaloo nuñ ko mën a jëfandikoo ci tasaareem njàngale jël ci njàngalem sëñ bu nekk ci misaal xëy na nag bu ñu xoolee nag ci doxañ doomu aadama dañuy seet ne léeg-léegi nit day mel ne kuy dellu gannaaw léeg-léegi loolu dañ ko xamee ci nit su fekkente ne jëfandikoo yum daan jëfandikoo bu yàgg melokaanam yum meloon njëkk bu yàgg-yàgg su demee ba ñuy gisaan ne day delluwaat ci melokaan yooyu dañuy jàpp ne nit mu ngi dellu gannaaw loolu nag bu nu xoolee tey ci misaal nit bi ñu dooru ñëw àddina suñu borom andi ko nit ka njëkk ñu njëkk ñi xamuñu woon sol yére daawuñu sol yére mu mën a suturaal seen yaram wala boog man leen a fegal tàngoor wala seddaay booba yaramu nañu daan def comme ni bàyyi mel noonu doomu aadama meloon ci jamono yooyu itam xamuñu woon jaxasoo ci suñu biir booba niñ daan def bàyyi ma ni ñuy def ku man sa moroom ci kawam jëfandikoo ko ñëpp daan xeex contre ñëpp loolu moo doon yi nga xam ne ni moo amoon jamono yi nit di door a feeñ ci kaw suuf ñu dem ba mu yàgg gis ne nit kon mel na ne commencé naa dugg civilisation am xelam commencé di ubbiku mu daal di gis ne kon war naa sol yére buy suturaal ay awraam waaye itam war naa sol yére yoo xam ne nii dana ko fegal sedd dana ko fegal tàngaay commencé ba xam ne nit moom kese mënta dund moom dong mu commencé di dund ci ay groupe ay mbooloo bu ko defee ku nekk nangul ne sa morom ne dangaa war a nekk ni nga war a nekk loolu kon civilisation loolu la indi waaye fi ne jamono ji ñu toll nii booy xool dafay mel ne dañoo delluwaat ca cosaan lu njëkk la léegi ñu daan sol yëre dañuy summi ko def yaramu nen loolu defe naa nekkal lu raar ngay dox ci mbedd bi surtout ci yenn réew yi gis ku def yaramu nen daanaka wala koo xam ne ni lam sol daanaka amul leen lu muy suturaal ci moom loola moo ko yaramu nen ñooyam da ngay gis it ne dem nañ ba jàpp ne kon loolu mooy civilisation nga xam dañu jàpp ne léegi ni jàpp ne civilisation mooy nga summi ko def yaramu nen sol yére yoo xam ne nii daanaka moom ñàkk sol yére ñooyam te loolu xamuñ ne ba nit dugg civilisation noonu la meloon kon boo ca delloo day mel ne dangaa ngaa dellu gannaaw demoon nañ bàgg ci nangoo dund suñu biir ku nekk nangul sa morom ñu dem ba gis ne loola mi ngi commencé dal gannaaw léegi jëfandikoo doole jëfandikoo violence forcé nit ki dafa commencé di dellusiwaat ba tey ñu jàpp ne loolu mooy civilisation di dund loola ñu dem ba jëfandikoo xel ci tasaareem njàngale mel ne day dellu gannaaw moom itam léegi dañ koy gis nit daal di sóobu ci yoon woo xam ne nii li mu koy indi lan mooy am naa gis-gis am naa pas-pas am naa ngëm-ngëm danaa ko forcer nit ñi danaa leen ko imposer forcer leen ko ngir ñu ànd ak man sama njàngale ku ko deful ma dal ci kawam jàppee ko ne am nangam tudde ko tudde ko wutal ko wutul dal ci kawam faagaagal ko ndax gëmul li ma gëm bu ñu ci jëloon misaal mu gàtt rek tey booy xool li ñu tudde mondialisation ay réew yu mag ñoo jël système boobu gis ne moom mooy seen dundin man jàpp ne moo dund bu baax ñu jël ko ñun imposer ñu ko ñun ñi nga xam ne nii amuñ ci amuñ ci cëgg amuñ ci kii amuñ ci dara dara nekk luñ ci ba noppi ñu jël ñu dugal ñu ca biir imposé ñu ko ba ku nangut dox ni ñuy doxe ñu jël ngànnaay dal sa kaw ne la da ngay terroriste nga wala da ngaa génn nangam dal sa kaw daal lay faagaagal ñu jël ay valeur yoo xam ne mooy seen xiyam seen cëslaay bopp ne mooy ay valeur universelle dal koy jël forcé ci ñëpp ñu jaar ci te moo ne loolu demeewul noonu sunu identité yi ñu xamee woon ñun ñu taxaw temm ci far ko ba léegi ñëpp nekk benn mbooloo nuroo ci lépp mel ñëpp nekk benn melokaan te mooy melokaan bi nga xam ne ni ñoom gis nañ ne looloo moo war a am ñu impos ñu ko loolu nag mooy doxin wu bees yi loolu nag dafay tegtale ne kon nit ñi ñu ngi dellu gannaaw ñu yëg ko wala ñu yëguñu ko dañoo jàpp ne ñu ndiggu civilisation waaye dafay mel ne dañuy dellu gannaaw ndax ñuy delloo ci suñu dundin wu jëkk ba nga xam ne ni danoo doon ba gis ne loolu dawut dundin ñu bàyyi ko ñëw ci dundin wi moo tax léeg-léegi nag ngir jëfandikoo loolu léeg-léeg jëfandikoo force ngànnaay léeg-léeg jëfandikoo ay li ñuy wax sanction économique réew wala boog mucc wala askan woo xam ne nii bëgguñoo jaar fi ñu jaar ñoom ñu ñu dagg la jëf dootuñ jëflante ci wàllu koom say koom ci bitti ñu téye ko dootu jot ba dugal la ci xiif dugal la ci coono ba askan woo ni ci coono loolu dañ koy jëfandikoo léeg-léegi ñu génde la ci mbooloo yi nga xam ne ni àddina bi bokk maanaam ñu embargo ci wàllu politique maanaam mbooloo yoo xam ne association yoo xam ne nii wala boog yoo xam ne nii ñëpp réew yi ci bokkoon ñu jekk-jekk génne la ber la ne la ndax yow mënatoo ànd ak nit ñi ndax liñ bëgg bëggoo ba ci diplomatie bi ñuy waxtaane sax dañ léegi mi ngi sukkandiku ci doole réew yu baree bari léegi force la ñuy jëfandikoo ngir imposer seen gis-gis ak seen i bëgg-bëgg ci ñeneen ñi ci des loolu nag kon dafay tegtal ne kon tomb la boo xam ne nii waxtaane ko am na solo lool bu ñu demee ba soppi ku nekk ay xeet yoo xam ne nii ku ëpp sa moroom doole jëfandikoo ko ku new doole amatoo kàddu mbooloo mi bu ñu dajee képp koo xam amoo kàttan amoo doole amoo fa kàddu yow dañuy wax rek ngay jëfe waaye kenn du la xalaat kenn du la déglu ànd ak loolu lépp nag fu ñu di wane ne ñoo ngi civilisation dañoo avancé ak yu mel noonu te moo ne kuy xool dëgg-dëgg dangay gis ne loolu ak dellu gannaaw la moo tax waxtaane tomb bi danay am solo ñu waxtaane taxawaayu diplomatie ci tasaaree xalaat ak i pas-pas ak nun ko mën a jëfandikoo ci biir yoonu murit loolu defe naa ne tomb bu am solo la moo tax li ñuy tënk ci waxtaan yi mooy baat bi danañ jéem a xool dellu ci cosaan yi gëstu ko ba xam lu muy tekki dëgg dëgg dëgg suñ noppee dañ jox exemple yoo xam ne nii ci diplomatie yoo xam ne nii bu njëkk nit ñi daanañ ko jëfandikoo colonialiste nañ ko daan jëfandikoo diine ni mu ko daan jëfandikoo ngir tasaarem njàngaleem buñ noppee nag ñëw ci murit gi sëñ bi ni mu ko daan jëfandikoo ak li ñu ci doxe baak si fii ak jumtukaay yi ñu gis ne jàpp nañ ne mën nañoo dimbale ñun murit yi bañ mën a dox jëfandikoo diplomatie tasaare njàngaleem sëñ bi door a tëj kàddu gi loolu mooy doon tomb yi nga xam ne nii moom lañ fas yéene waxtaane tasaare seen i yitte ak xalaat ak seen i pas jël ci lu mel ne colonial si ni mu ko daan jëfandikoo diine ni mu ko daan jëfandikoo bu ko defee ñëw tam ci murit gi sëñ bi ni mu ko daan jëfandikoo ak murit yu njëkkee ba jamono ji ñu toll nii danañ tënk tam ay jum yenn ci jumtukaay yi nga xam ne ni jàpp nañ ne ñun murit yi buñ ko jëfandikoo mën nañoo dimbale ci nu mën a tasaare njàngaleem sëñ bi teg ko ci diplomatie gu mat sëkk su ko defee nag dooru tëj waxtaane su fekkente ne loolu dana fi xaj ci téere yi nga xam ne ni dañ waxtaan ci mbirum diplomatie ñu jéem a seet baat bi li muy tekk ñoom dañoo wax ne rek ci relation internationale yi ni ñuy jàngale diplomatie mooy jëpp jëf joo xam ne nii wala jéego yoo xam ne nii gouvernement yi dañ koy def ngir mën a jokkook yeneen xeet yoo xam ne nii bokkuñu ak seenu xeet te jublu ca nag taxawal waxtaan ak déggoo goo xam seen biir goo xam ne nii dañ koy teg ci yoon ba noppi jublu ca nag ñoom mën a xamle seen mbir mën a tasaare seen gis-gis mën a tasaare seeni xalaat ci réew moome waaye itam fexe ba mën a bàyyi jeexit xalaat yooyu ak jeex ak euh, pas-pas yooyu nu muy bàyyee jeexit ca mu jëm ba tax ñoom bu ñu bokkut ñoom pas-pas tam daañu leen nangul daañu leen mën a toléré daañu leen mën a jàppale ci ñuy def donte gëmuñu ko waaye daañ waxtaan ak ñoom ba dëppoo ci kàddu yoo xam ne nii donte bokkuñu pas-pas ñoom daañ leen nangul seenu nekk loolu bokk na ci diplomatie ñuy jëfandikoo nag ay jumtukaay yu baree bari ñoom bu njëkkoon ngir mën a jàllale lu mel noonu bokk na ci lu mel noonu jokkaloo goo xam ne ni diggante nit ak lay doon dem cim réew dajale ak mbooloo mi di waxtaan ak ñoom wala sax nga def ay yoo xam yaa koy jaarale ci média bi lu mel ne rajo yeeg télé yeeg mel noonu bu njëkkoon wala sax ñu dem ba koy jaarale ci lu mel ne internet bi nga xam ne nii man ngay toog fii di waxtaan ak mbooloo moo xam ne nii ay nangami junniy kilomètre mooy dox seen diggante nga leen di leeral say position say taxawaay ba mun a bàyyi ci ñoom jeexit dañ koy jëfandikoo léeg dañ ko jëfandikoo ci wàllu jokkalante ci wàllu aada cosaan ci misaal tey ñu jël ay nit indi leen fii bu ngeen xoolee lu mel ne américains yi ñu mel dañ ko jëfandikoo lu mel ne corps de la paix wala maanaam lu mel ne sapano yi seen ñu ñëw fii mel ne ñu jàppale nit ñi loolu ci lu mel noonu lay jëm bu ko defee ñu koy jokkalante loolu tam day tax ñu mën a am jeexit ci ñoom dem nañ tam bay jëfandikoo li ñuy wax ONG yi mooy organisation non gouvernementale yi nga xam ne nii duñ topp gouvernement waaye nag daanaka ñoo gouvernement duñu sore ñoom it dañuy ñëw cim réew di fa liggéey ngir mën a rataxal diggante réew mooma ak réew mañ jóge ñoom loolu ma tey ci diplomatie lañ lañ bokk. am tam ñu dem ba weesu foofu léegi fexe ba li ñuy tuddee ar-ra'yul 'aam te mooy opinion publique mooy gis gisinu mbooloo mi ci réew moom doon nu mën a fexe ba gisinu mbooloo moomee ñu fexe ba dugg ca biir di ko jubbanti ak di ko teg ci yoon wi nga xam ne ni moo dëppoo ak loolu defe naa ne ko gis àdduna bi muy tëddee léegi da ngay gis réew yu baree bari ni ciy doxe fexe ba gisinu réew sàngam nañuy gisee ak nañuy déggee ñu fexe fexe ba dugg ca biir bàyyi cay jeexit loolu dañ koy def fexe tam ba seen intérêt ya fa nekk nu man koo sàmm te nekk ci dëkk boobee duñu ci am lu ñuy kii ba tey loolu kon loolu mooy baat bi ci cosaan waaye itam dafay tekki ba tey melokaan wi nga xam ne nii moo war a ne ci ki koy def ki ñu tudd ab diplomate nga xam ne nii moom mooy doxal loolu léeg-léegi baat bi day tekki melokaan yi war a ci moom bokk na ci melokaan yu mel noonu ci misaal moom ku war a am ak nooy la maanaam mën a jëfandikoo jëflanteeg ñu baree bari waaye itam ku muy jëflanteel itam dana fexe fexe ba waruma ji war a dox seen diggante dana koy bàyyi xel buy so buy doxal itam mbir ma na muy doxe danañ ca sàmmonteeg ne gën a rafet muy doxe noonu waaye itam da cay wane yar bu mat sëkk waaye na ànd ak loolu lépp day jël ay matukaayam ku teey lay doon koo xam balaa def dara dana ci xalaat jàngat ko ba xam lu ci mën a juddoo ak yëpp mu jël matukaay yu mu war a jël yëpp da cay bokk bokk na ci melokaanu ku ñuy tudde ab diplomate tam mooy koo xam ne nii day amul muus lool ak xerañte lool ci fa mu bëgg a jëm objectif yi ñu ko fixeel ne ko foofu nga war a dox jëm fa dana fexe ba àgg fa te du def kenn lu ko naqari waaye itam du sabab kenn ak mbañeel diggam ak moom ndax am na yoonu muy jaar woo xam ne nii ba àgg fi mu bëgg am ba am li mu bëgg te kenn du yëg ne sax moom jaar na fa kenn du ci am la naqari loolu dafay teg loolu loolu nag wuute nag ñenn ni ñuy jàpp ne loolu mooy diplomatie am na xam dañu jàpp ne diplomatie boo ko waxee mooy koo xam ne nii ab workat lay doon lam lay wax du ko def activités yi muy def ci kaw du bokk ak ya muy def ci suuf léeg-léeg muy def ay jokkalo yoo xam ne nii yu si ñu mën a sikki sàkk lay doon ba xam lu ko tax a jóg di wuruñ di wariñ mel noonu di di espionné wu maanaam di tajassus wala boog di roj raju ak yu mel noonu ak di complot ngir yeneen réew loolu xëy na am na ci diplomatie waaye mooy déggin wi nga xam ne nii déggin wu juunu la ci diplomatie waaye diplomatie dëgg-dëgg wala diplomate dëgg-dëgg mooy koo xam ne nii melokaan yi ñu waxoon bu njëkk dafay ne ci moom kon diplomatie ñu ngi ko tënk ci amug ñëw amug muus waaye tam am muruuna muruuna mooy koo xam ne nii situation bu ñëw dana mën a fexe ba ànd ak adapté wu situation boobu te du feeñ ci moom lool lool lool loolu mooy may nit bu nekkee ci nit nu nit ñi ñëwee rek dana mën a fexe jëflante ak ñoom ba mën a génne ci ñoom orma jox dañ ko ko jox donte sax moom du wax wala boog la muy wax mën naa bañ a bari kon loolu mooy cosaanu baat bi mu siiw lool ci jamono ji ñu toll nii ci relation internationale yi réew yi di ko jëflante waaye itam mboolooy seen bopp di ko jëflante waaye nit ci boppam tam mën koo jëflanteeg ñeneen i nit ngir mën a jàll ay xalaatam ak i dégginam loolu nag système bu fi yàgg la boo xam ne nii bu buñ delloo ci histoire dañuy gis ne ñu bari daan ko jëfandikoo buñ jëlee misaal mu ne ñu mel ne tubaab yi colonialiste yi ñi ñëwoon ci yeneen réew dem not leen toog fa daanañ jëfandikoo diplomatie ci njëlbeen ku mu nekk xam na ne diine dafa am taxawaay ci diplomatie dafa bokk jumtukaay yu diplomate yi jëfandikoo ngir mën a jàllale seen xalaat moo tax colonialiste bi ñu ñëwee li ñu tuddee ay missionnaire mooy ñi nga xam dañu daan tasaare diine chrétien ñaari ñoom dañ daan lëkkaloo ak tubaab yi ak colonialiste yi ngir mën a lay laytaayal tubaab yi bu ñëwee ñoom fexe ba comme ñoo ñoom ñoo bokk pas-pas daanaka jamono yooyu ñoo bokkoon pas-pas ñoom ñooy jiisu bu ñooy laytaay terrain ba nga xam ni ñoom bu ñu ñëwee population bi nangul leen dana yomb lool. moo tax ñaare réew moo gis colonialiste dugg fa boo xoolee da gis ci wet bi ay missionnaires yoo xam ne nii dañ daan wër di tasaare njàngaleem diine waaye bokk yeneen diine ji te mooy diine yi nga xam ñoom loolu ñu gëm te loolu du fi gan yàgg nañoo gis nitu diine yi ak nitu politiciens yi di jëfandikoo di jëflante seen biir lu bari danañ gis nitu politique di jëfandikoo nitu diine ngir mën a àgg fa jëm safaan bi tam day am day gis nitu diine yoo xam ne nii dañuy jëfandikoo nitu politique ngir àgg ngir mën a réaliser seen objectif loolu kon lu fi yàgg la kon colonialisme bi ñëwee bokk nañ ci seen diplomatie bi ñu doon doxee mooy fexe ba nit ñi seen pas-pas ñu soppi gëm loo leen diine ji bees ji nga xam ne ni ñoom ñoo leen ko indil nit ki nag boo ko fexee ba indi ko ci sa pas-pas ngeen bokk pas-pas ngir mu nangul la dafay daal di yomb moo tax loolu daanañ ci jaar di ko jëfandikoo te duñ jëfandikoo ngànnaay daanañ ñëw tam ci dëkk ci seen doxalin nu fexe ba nit ña fa nekk di ay groupe ñu naan maanaam maanaam réew sàngam réew sàngam boobu réew yi maanaam kajoor ci misaal Sénégal ñu ne kajoor bawal saalum nu fexe ba dugg ci diggante kilifa yi ne woon foofa di leen boole ba ñoom seen biir ñuy xeex ba néewal seen bopp doole bu ko defee ñoom lañ bëggoon def ñooñu leen ko defal te ñoom duñ sonn loolu tam daanañu ko jëfandikoo ci kaw ñu ñëw def ak ñoom coalition boo xam ne nii ku nekk xam ne ne la cay ngaañ ca ñële lay juddoo la cay njariñ ci ñoom lay dellu si loolu daanañu ko jëfandikoo moo tax ñoom dañu daan jëfandikoo diplomatie ci sens bi nga xam ne ni mooy sens négatif bi te mooy li ñuy wax mbooloo boo ko bëggee yilif boo bëggee nguuru seen kaw da ngay fexe ba tas leen boo leen tasee ba ñu nekk par kenn bu ko defee leen di jël par kenn di leen not ba mu wëlbatiku not mbooloo mépp moo tax bu ñu masaan ñëw dañ fexe ba ñu ànd ñu nekk ñu fexe ba tàqal leen loolu feeñ na ci diine ji feeñ na ci suñu réew yu njëkk yi maanaam maanaam Bawol ak Saalum ak ni ñu jaxasee woon ba ñuy seen biir ceddo yi ak maanaam doomi soxna yi àgg na léeg ba ci lislaam bi nga gis nañ ko defee ay pàcc-pàcc kii ñu tudde ko nangam ki ñu tudde ko nangam ñu tudde ko nangam fexe ba duñ nekk benn ndax loolu bu ñu nekkee benn leer na leen ñoom seen seen seen seen xalaat du jàll bu ko defee ñu fexe ba tas ñu def ñu ay secte maanaam secte maanaam ay kuréel kuréelaan ku nekk jàpp ne sa morom néew ci dara bu ko defee ñu fexe ba tas ñu loolu mooy dangay ngay tàqale mbooloo mi bu fekkee da ngaa bëgg a nguuru seen kaw kon loolu ñoom yàgg nañu koo jëfandikoo te ba léegi nag colonialisme dafa bu njëkk ba moo xewi waaye li ñu tudd néocolonialisme mooy façon colonialisme bees bi ba léegi ñu ngi jëfandikoo jumtukaay yu mel noonu donte nag soppi nañ ci dugg nañu soppandiku waaye ba léegi koy jëfandikoo léegi tey boo xoolee ñu sos ay ay organisme yu baree bari tey boo demee réew yi ñu tuddee seen bopp francophonie ci misaal tey ñu ne réew yi ñoom tubaab la ñuy làkk ñun li suñu yoon newul ci tubaab waaye fexe nañoo fexe ba ñun Sénégal ak Côte d'Ivoire réew Afrique yi ñu ne ñu ay francophone lañu anglais fexe ba am ub groupe tudde leen anglophone maanaam ñu ne ñoom anglais la ñuy làkk portugais yi fexe bal ñu ay lusophone maanaam ñoo xam ñun ñoom portugais mooy seen làkk yooyu ay jubtukaay la yoo xam ne nii colonialisme ak impérialisme bu bees moom la ñuy jëfandikoo ba tàqali nit ñi mën a sukkandiku ci kaw di nguur seen kaw di sàcc seen alal di leen jëfandikoo ci wàllu xel ak xalaat dafa tasaare seen gisin te mën naa am ñu ko seqal duñ ko xam bu baax kon yooyu yëpp lu ñu daan jëfandikoo la ci tubaab yàgg nañ ko jëfandikoo ñu xam bu ñëwee ci diine ji tam diine yàgg naa jëfandikoo diplomatie bokk na ci woote yi njëkk a jëfandikoo diplomatie ngir tasaare seenum njàngale diine ci la bokk li ma tuddoon léegi muy ay missionnaire daan daanaka diine yëpp a kom diine yëpp dañu daan jël ay nit formé leen jàngal leen diine ji bu ko defee ñuy wër di dem ci yeneen réew yi di fa tasaare diine ji di waxtaan nit ñi di leen ci dugal moo tax ñoom daanañ jëfandikoo diplomatie ngir xëcc nit bu ñëwee fexe ba xëcc la ba convaincre la ba nga gëm pas-pas bi nga nangu ko te duñu xeex ak yow duñu xuloo yow waaye ci lañ koy jaare loolu moo doon taxawaay ñun ci alxawaariyun xawaariyun Seydina Isa alayhi salaam ñoo ñu ko daroon ñooy xawaariyun loolu moo doon seen mission ku nekk xam ne ne diine chrétien lu ci baree bari ñu ngi koy jàng jamono ji ki ñuy wax Paul moo ko ci dugal Jean Paul maanaam pool Paul moo doon moo moo moo doon ci yoon yi ñu ci baree bari njàngale mu baree bari moo ko ci dugal moo ko tas tam ba mu ak yaatu ci àdduna bi fu baree bari noonu la amee boo ñëwee saxaaba yi toppan ci gannaaw yonent bi sallallahu noonu lañ meloon xam ngeen ne ku nekk da ngaa demoon fu barab ne fa di tasaare njàngaleem lislaam loolu tam mooy taxawaayu li ñuy tuddee ay rijaalu diin mooy nitu diine ñi boo delloo ci yonent bi aleyhi salaatu salaam da gis ne lislaam bi muy door juddu nekk makka nekk ci ay coono yu méttee métti yonent bi li mu njëkk a def ci diplomatie la ko jaarale mooy waxtaan ak buur bi nekkoon Éthiopie ñu ko daa wax Najaasi yi ne damaa bëgg am ñu ma indi ci jullit yi foofu nga aaral ba ba ñu am doole mu nangul ko ko loolu ci diplomatie la ko jaar am ci mbooloom jullit ñu njëkk nekk ci lislaam daal di gàddaay dem Éthiopie nekk fa diir ba yëf yi gën a daal ñu dellu si demaat nañ fi sax gannaaw loolu ci diplomatie la ndax du xeex du dara gis nañ tam yonente bi alayhi ni mu daan jëfandikoo diplomatie ci giir yi daan ñëw màkka di siyaare si xam ngeen ne ci la jokkaloo nag ñu nekk yasrib yasrib mooy madinatu munawwara léegi noonu la tuddoon bu njëkk noonu la jokkaloo ñoom waxtaan ak bañ dëppoo ci ne ko nañ gàddaay màkka ñëw madina ñëw yasrib bu ko defee ñu dalal leen ba lislaam am doole noonu yoon alayhi salaam def waxtaan ak ñoom ba jullit yi xëy gàddaay màkka dem yasrib wàcc yasrib loolu ci diplomatie la ko jaare du xeex du dara waaye li ci ëpp solo mooy yonent bi mu ñëwee yasrib xam na ni turu yasrib bu ñu ko bàyyee noonu gan ñi bu ñu ñëwee ñoom dañ gëm ne dëkk bi dañ fay tumurànk ndax dëkk bi yasrib kon ñoom ci waa yasrib ñoo ko moom moo tax ci diplomatie la jëfandikoo bi ñëwee li mu njëkk def mooy soppi dëkk bi bu ko defee daal ko tudde Madinatu Munawwara nga xam ne kon ñu gan ñeeg dëkk yëpp daal di xam ne kon ñoo yem ci dëkk bi ndax dëkk bi turu bees la am léegi loolu ci diplomatie la ko jaare def na ko te moo ne ña dëkkoon yasrib maanaam kaasuñu naqarluwuñ ko méttiwu leen ndax ci yoon woowu ko jaar ci la ko jaare ku nekk gis na yenent bi ni mu daan bindanteeg yeneen buur yi ña nekkoon furs maanaam perse yi ni daan bindante na ñoom byzanti yi ruum ñooñu ñëpp daan bindante ñu ay lettre di leen woo ci lislaam bind lettre buur ba lay bind lettre di ko woo ci lislaam loolu lu am solo la ku nekk xam na ne ñoom ñëpp daan kenn dugg ci lislaam waaye nag bind gi mu leen bind rek leetar loolu rek dafay am lu mu bàyyi ci ñoom ndax dana tax ñoo xam ne ah kii kat kon li mu nekk dëgër na ci dëgëraay boo xam ne nii buur bu toll ni diw sàngam gannaaw moom la ñooy bind leetar di ko woo kon keneen du ma ta wax bu ko defee ñoom même buñ dugg ci lislaam itam dana tax ñu bàyyi woote bi lislaam bi dana ci bàyyi xel loolu ci diplomatie la ko jàngale la ko jaare te loolu lépp alxuraan moo ko njëkk a jàngale alxuraan moo njëkk a melokaan yi diplomate dëgg-dëgg ak nooy jaare ci diplomatie ba mën a tasaare sam njàng da nga gis muy wax ne ko yonente bi koy wax na ko na ngay diisoo ak nit ñi na ngay waxtaan ak nit ñi ci mbir mi mbir mi mooy état bi wala boog li mbooloo mi séq na nga ciy waxtaan ak ñoom de diisoo te diisoo mooy mooy cosaanul diplomatie loolu jàngal na ko ne nag boo diisoo nag ba jël sa décision nag na nga wakkilu ci yàlla dellu waxaat ko ne ko su fekkoon da ngaa nekk ku tàng gaaw a mer mënoo négocier mënoo waxtaan boo gëstoo doo gis kenn sa gannaaw loolu mu ne ko kon nag kon na nga leen di jéggal da leen di jéggal te di leen woo ci ak diisoo loolu ak alxuraan moo ko jàngal yonent bi alayhi salaam jàngal la ne bu ngeen di wootee jëme ci yoon yoonu yàlla na ngeen ko teg ci xikma xikma mooy ak xereñteef na ngeen ko teg tam ci wax ju neex ju nooy ju rafet loolu la lislaam jàngal daal ne bu ngeen di werante wala ngeen di discuter ñi nga xam ne ni bokku leen ak ñoom diine day leen discuter ak ñoom ci façon bu gën a rafet kon loolu lépp ci xeet diplomatie lay kon diplomatie ci diine lu am wàcc ci diine la ñu yàgg koo jëfandikoo ngir tasaare njàngale am njàngalem diine te loolu nag ba léegi ñu ngi koy jëfandikoo ndax ku nekk xam ne ne ba léegi diine ji ñu ngi wër di ko tasaare donte sopp nañ ci melokaan yu baree bari léegi daf koy organisation def ko ay nangam nangam yu baree bari di ko jaar ci alal ji di ko jaar ci yeneen yoon yoo xam ne nii ñu ngi dugal nit ñi ci diine ji te du def leen teg ñoom ci wàllu ngànnaay waaye ci xel ak xalaat ak aw doxalin wu rafet ci lañ leen di dugalee bu ñëwee ci murit gi itam naka noonu rek sëriñ bi radiyallahu anhu mën nañ jàpp ne diplomate bi gën a mag ci àdduna bi mooy sëriñ Tuubaa moom mooy sëñ ndax mu ngi njëkk a feeñee ci ni mu jëflanteeg tubaab yi bi ñu fi ñëwee système bi mu jëflanteeg ñoom moo ëpp efficacité foofu moo gën a mën a àgg fa moo gën a mën a àggale fa mu jëmoon foofu te moo ne jëfandikoo benn yoon ngànnaay loolu diplomatie bu ma sëkk la ci wane. ndax gis dem na ba gis ne force bi tubaab yi yor muy ci wàllu ngànnaay rek bu dee fetal ak ay yu noonu tubaab yi liñ ci yor méngoowut ak ñun liñ ci yor ci misaal tey ñoom dañoo yor ay ay ay kano yor ay sar yu mel noonu ay xeexukaay yu xarañ yow nga yor ay jaaseeg ay xeex bag yu mel noonu mënoo xeex ak ku mel noonu ndax bokku leen gànnaay bokku leen doole moo tax sëñ bi mu li mu tëgg daagan mooy ne situation yi bokkuñu kon ñii beneen façon ci la ñu war a ñoom ba mën leen a not loolu nag ci diplomatie la ko jaarale moo tax sëñ bi bi ñëwee li mu njëkk def mooy soppi façon xeex bi mu war a xeex ak tubaab bi te ku nekk xam na ne am na ñoo xam ne nii ngànnaay lañ jëloon ne dañuy jàmmarloog tubaab bi tey ñooña ñu cëpp tubaab moo leen faagaagal moo leen fi jëlee te ba mu leen fi jëlee daanaka seenam njàngale foofu la ñu tas ko te moo ne sëñ bi mës la jël fa nga jëfandikoo ngànnaay te njàngale moom doon jàngale ci jamono tubaab bi tey la gën a dëgër tey itam lañ koy gën a fàttaliku kon système bi mu jëfandikoo moo ëpp efficacité bi yeneen gars yi doon jëfandikoo boobu boo demee ci xasida ak yaa jumla tan dana ciy firi dana ciy wax lu baree baree bari gis na ne moom violence violence du ko tontu bu nit jëfandikoo ngànnaay violence ngay jëfandikoo violence ne moom violence bari rek lay jur waaye du am solution du am mukk moo tax mu soppi yëf yi jaar ko nag ci façon boo xam ne nii bu am solo bi ci njëkk mooy sëñ bi li mu njëkk def mooy forme ay doomu aadama former ay nit bañ mel ni mu bëgg ñu mel ko daan leen di tasaare nag ci biir gox yi ñu tasaaroo ci biir réew mi fu nekk kenn mel ni mag dem sanc fa gannaaw bu ñooñu nag defar nañ leen bañ mel ni war a mel ñoom dañoo dem rek toog. amul kenn ku ci daan wër naan kaay leen jébbalu ci man wala ku ci war naan féetalee ma diw ak diw loolu léegi la am waaye amutoon bu njëkk mag ñi day ñëw rek wàcc ci melokaan yu nekk ñoom ñoom la nit ñiy gis mu nekk melokaan wu leen neex bañ xemmem leen la ko defee nit ki mooy jékki-jékki ñëwal ci boppam ci mag moomu ne ko man de nii nga mel wax dëgg bëgg na maa mel noonu su xasee ñëw nag mën nga ah ni ma mel kan nag soo ne bëggee mel nang ak nangam ak nangam mënta ñàkk sat sàngam sàng mënta ñàkk mu daal koy nangu bu ko defee mu daal def mu bàyyi ah, benn mu indi ko sëñ bi wala mu nangul ko bu ko defee loola foofu lay juddoo système boobu moo tasaare yoonu mu tasaare bu gaaw te moo ne amul propagande amul campagne amul dara loolu def naa ne ci diplomatie bu am solo la boo xam ne ni euh, yoonu mu tasaaroo na ci kon mag ñooñu ñoo doon premier ambassadeur yi nga xam ne ni ñoo doon représenté nee na di ree ngir bégte loolu def naa ne kon maanaam relation bu baax lay teg tele seen diggante ñoom ñaar dégg nañ ci alaaji Abdou Aziz Sy Al Amin mu nga xam mooy doom si sëñ Babacar Sy ci Tiwaawan toog nañ benn bi jataay moo ko nettali boppam ci mbooloo la ko doon nett leen mu ne sëñ alaaji Malick bi mu liggéey wàccee bi liggéey 1922 sëñ Touba sëñ Mbàkke Bousso ak maam Cheikh Anta la yebal ne ko dem leen jaale ji nee na bu ngeen demee na ngeen fa am ayu bis neen loolu la leen sant bu ngeen fa toogeen bu ngeen demee na ngeen fa toog ba bis ba delsi lañ def ñoom ñaar bi ñëwee fa lañ toog ba bis ba foofu la ci waxtaan ñun nag ñu ñu ñu génne ci ne sëñ bi da koo yabalal ñaar yi nga xam ne nii àdduna bu jegee ñoo ko jagal mooy xam-xam ak alal ñoom ñaar kii ci xam-xam bi la yëngutu kii am ci alal ji ñoom ñaar fu ñu daje lu nekk mën na faa jag loolu ci système la boo xam ne nii sëñ bi jaar na fekk moom ci boobu eh, laaj Abdoulaye Niass moo nekkoon ko wax moom it bokkoon ci kilifa muqaddam tijaari wax nañu sëñ bi mas koo jox tafsirul jëlaale yi jaare ki ñuy wax ma sàmba seen jox ko loolu tam irwaaw na di moo ko nettali bi mu ko waxee li mu ko wax lii ma def nag xam naa ne sunu dana yonent bi alayhi salaam dana ci bég waaye seytaane dana ci mer loolu boo demee ci dirasa xawlal murid am na ci benn conférence boo xam ne nii boo nee na nga ko ca fekk Alaaji Abdoulaye Cissé moo nekkoon jaamal moom it nekkoon ci tiijaan yi moom it ku amoon relation ak sëñ bi la daan rafet lu muy wax sëñ bi lool pas-pasam ci sëñ bi itam rafetoon lool sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nettali na ne benn bis toog nañ ci jotaayam ñu waxtaane sëñ bi ak wirda yi sëñ bi wax ne moom yonent bi moo ko jox yàqasatan laa manaamatan sëñ bi neen yonent bi moo ma ko jox ci lu dul ay nelaw jaxdan moo yonent bi mu jox ma wirda wi nee na bi ko nettalee am benn taal xam rek mag yu taalibe léeg-léeg ni ñuy def benn taal daal commencé bëgg a commentaire ci affaire nee na Abdoulaye Abdoulaye Cissé da ko daal di gëdd xanaa moo ne Cheikh Ahmadou Tidiane sunu sëriñ xanaa waxut ne wirda wi mu jox yonent bi moo ko dikk ci mu koy bind ñu ne ko ah mu ne ko moone de si euh, Ahmad Tidiane moomu nit ku baax dong loolu boroom xam-xam lu baax lool ragal yàlla di sunni di jafee xam-xamam ba mu ñu ko waxee ñu rafet ci moom njort dëggal ko daal ko moo ne sëñ Tuubaa mi itam weesuut kooku boroom xam-xam la bu ragal yàlla di jafee xam-xamam di jafee sunna kon nag bu ñu waxee li lu tax mënuñ koo dëggal taalibe moom foofu la daal di yem te gaatu ca baat loolu lépp dafay tegtale ne eh, kon ñoom sëñ bi ci wàllum diplomatie moom yàgg na koo jëfandikoo ci relation yi mu seqoon ak mag ñi te loolu mayoon na ko tam mag ñëpp nangul ko maanaam mag ñëpp nanguloon ko waaye itam joxoon ko cër loolu ci la bokk am nag yoo xam ne nii xëy na jamono comme dox nañ baag si fii am na jumtukaay yoo xam ne nii ñun murit gi bu nu bëggee gën a tasaare njàngaleem sëñ bi te sukkandiku ci yoon woo xam ne nii yoon wu diplomatie lay doon am na yoo xam ne doon mën nañu saa dimbali bi ci njëkk mooy langue yi ay làkk làkk yi ngay gis il faut ñu mën ci lu baree baree bare làkk bu ñu mën a jàng nañ ko jàng ba mën ndax langue mooy jumtukaay bi njëkk bu nit bi gën a mat bi gën a efficace ci waxanteeg nit mooy bi ci gën a efficace tam ngir dégganteeg nit ci tasaare say xalaat ak sa gisin ak say pas-pas te mënoo jokkalikook nit tam te amoo làng te nit ñi nag ni ñu wuutee noonu la làng yi wuutee te moo ne dañu wax ne nit bu fekkee da ngay wax ak moom ci làkk boo xam du làkkam xel mi ngay waxal waaye nag su fekkee da ngay wax ak moom ci làkk bi mu nàmp bi nga xam mooy làkkam moom xol bi ngay waxal maanaam fi mu ne tey boo doon dox bitim réew ba taseeg nit mu làkk la wolof da ngay noyyiwaat maanaam sa xol lay daal di yëg touché directement bu ko defee léegi nag bu ñu fexee ba dëkk bu nekk ñu fa dëkk ñu man seeni làkk bu ñu demee di wax ak ñoom ci làkk yi ñuy làkk ñoom dañ mën a tasaari njàng mi suñ ci lu gaaw loolu defe naa ne am na ci solo moo tax képp koo xam ne nii da ngaa yor xalaat jamono jii wala nga yor pas-pas wala lu mën di doon loo xam da ngaa bëgg ñeneen ñu jot ci mënta ñàkk nga man ay làng yu baree bari ndax mooy jumtukaay bu njëkk bu dul loolu ay jafe-jafe yu baree bari da nga jànkoonte ak moom te boo wut li nga bëgg a tasaare doo ko mën a tasaare ñun ñëpp xam nañ ne njàngaleem sëñ bi valeur am mënuñ ko mënuñ ko nat mënuñ koo nag li ci nekk ay orientation yoo xam mën naa régler problème àdduna bi kenn xam nu toll waaye nag ku xam na ne ni mu war a tasaaroo moom des na bu baax a baax a baax baax ba léegi njàngaleem sëñ bi ci cadre bu gàtt gàtt biir Sénégal ji doog waxuma biti bi waaye biir Sénégal gi rek am na gox yoon boo fa demoon tey daanaka xamuñ dara ci sëñ bi ndax dégguñu wolof bi ñuy làkk te ñun amuñu ñuy làkk-làkk boobu di ci wax ak ñoom fuuta gu jege gi rek ne boo fa demoon am ñoo xam daanaka sëñ bi dégg dong lañ jàpp waxuma la ñu ci xam dara kon fexe ba langue yi suñu langue yi tàmbale ko ci biir réew mi nañ fexe ba làkk réew mi yépp ñu man ko waaye itam yeneen langue yi xam ne langue internationale la anglais bi france bi espagnol bi chinois bi yooyu nañ fexe ba am taalibe yu xereñe xam sëñ ba nag man langue yooyu man ko wér wér buñ demee di ci waxante ak nit ñooñu loolu defe naa ne ci jumtukaay bi njëkk la bokk jumtukaay bi ci topp mooy ñi ñuy tuddee ay représentant ci murit gi ñiy représenté murit gi ci bittim réew ak fu man di doon war na noo xoolaat bu baax a baax niñ leen di fale wala boog niñ leen di tànn ci jamono jii man li ma ci xam mooy jàpp ma ne am na critères yu leer nañ yoo xam teg nañ ko ne képp ku war a nekk représentant sëñ bi ci bitti barab bu mënti doon critère bi ak bii ak bi mënta ñàkk ci lañ lay tànne loolu yaakaaru ma yaakaaru ma ne amagul na fu ñu ko tënk tax ñu baree bari ña nga fa nekk représentant sëñ bi te moo ne njàngaleem sëñ bi boo demee xamuñ ci lu bari sax ndax xamuñ ci dara man ñu baree bari fi ni boo doon laaj sëñ bi lu mu jàngale ci barab sàmbara sàngam xamuñu ko te moo ne ñooy représentant sëñ bi ci la koy waral bari na benn ñoom dundul murit gi dëgg-dëgg ndax teel na fee jóge dem bitim réew wala ci àll bi yaroo fa màggee fa ba xëy nekk mag kooku du xam ci njàngaleem sëñ bi lu bari ba noppi wëlbatu nekk fa représentant sëñ kooku fi ne tey bu keneen ñëwoon di ko laaj sëñ bi dëgg-dëgg moom du ko mën a jàngal sëñ bi dëgg-dëgg wala bokk ci ay dégg naa yaakaar naa rek la koy waxe loola mën naa am bu dee boroomu xel loolu du ko doy ñenn ci ñooñu itam amuñu critères yi nga xam moo war nag ci diplomate dëgg-dëgg mooy yi ma waxoon léegi nu ñuy mën a fexee ba mën a jokkoo ak nit nooy mën a fexee ba convaincre nit nooy mën a fexee ba kii ñu baree bari ci ñoom duñ ko am ndax formé leen ci loolu itam da ciy manqué ñu baree bari ci ñoom itam dañ faa nekk yàgg fa ab daayira amoon fa wala ñu sos daay daayira jiite daayira ba ñu dem ba mu yàgg ñun ñooy représenté sëñ waaye daanaka sax ñu si bari sax duñ leen fal moo tax ñoom ñëpp ñoom daanaka seen liggéey weesuwut mburi murid yi maanaam murid yi fa nekk daal bu ñu amee daayira ñu organise daayira bi bu fa kilifa ñëwee ñu dalal ko weesuwuñ loolu waaye nag tasaare njàngale mi sëñ ci biir réew ñu dëkk moom ñu néew ñoo ko ci def ñu bari ndax amuñu jumtukaay yi nga xam ne ñoo am pour man ko tey am na réew yoo xam ba fa murid nekkee léegi kenn xamul kañ la te moo ne booy dem dugg ci waa réew ci murid yi ay benn benn la ñuy doon loolu defe naa ne laaj nañu xàmmee ko laaj na tam euh, ñu tàqatle diggante njiitu daayira ak kii représenté sëñ ndax loolu lu ci am solo la lu ci am solo la ndax bu fekkee ne yow da ngaa représenté sëñ wala yu mel noonu yow nga nekk njiitul daayira amul limite sa sa sa amul limite te moo ne mooy meneen daayira mën na faa sos ci wet gi comme yow président daayira nga beneen président daayira ngi ni mën ngeen bañ a juboo loolu day am gis maanaam mbooloo mu daal di xaaj xaaj beneen daayira daal juddu beneen daayira juddu fële bu ko defee moom mu nekkoon représentant bi dootu am doole moo tax bu ñu tàqalee woon fonction yi nga xam ne yow jiite woob daayira waaye sëñ bi nga fi nekkal daayira yëpp dañuy mën a jokk ci yow ndax faroo ci fenn waaye boo xasee féete ñoo ñooñu dañ lay daal di bàyyi xel ñeneen dañ la daal di bàyyi xel loolu defe naa ne mënta ñàkk ñu bàyyi ko ci xel fexe tam bay limité seen mandat nga xam ne naan la boo fi nekkee nangami at dañuy beesal ndax beesal tam daa mën a ñàkk ci mbir nit day àgg foo xam ne nii ay ay xalaatam day jeex maanaam li nga amoon lépp joxe nga ko il faut que deret ju bees mooy war a ñëw ngir mën a jëlaat beneen relais beneen jëlaat beneen yoon bu bees bu ko defee mën a indi yeneen ubbi ubbi ubbi yeneen bunt bees waaye daanaka ku fa xas nekk daanaka faatu rek moo la fay jële te loolu tam day tax tendance di am ci biir ndax da ngay dem ba dootoo am loo joxe yow il faut kon ñu fexee nuñ ko limité noo xam ne nii donte dañ naan boo toogee naa nga mat dañuy xool ñu falaat la wala ñu mel noonu daal al almuhim ñu wutal ko seet beneen war nañ ko xoolaat defe naa ne ci tënk ki ñuy tànn tam war nañoo sàmmoon sàmmoonteeg moom ci ay compétence ci wàllu jikko waaye tam ci wàllu xam-xam mu nekk nit koo xam ne ay melokaanam ci wàllu de day tegu ci yoon waaye tam day xam am xam-xam ci sëñ ba noppi am xam-xamu àddina mën a jox jokkoog nit ñi maîtriser itam langue yi bu baax a baax ba mën a wax nit ñi ci làkk yooyu loolu tam defe naa mënu cee ñàkk il faut que itam ñu fixer mission ne yow lii moom la ñu sant objectif bii fa nga war a àgg ci barab sàngam ndax diplomate bu ñuy bu ñuy nommé ci réew dañ koy jox lettre boo xam moom bu demee moom lay jébbale lettre de mission maanaam mission bi dañu ko naan yow nangam ak nangam ak nangam war nga cee dox ab diir boo xam boo ko doxee boo ko doxul dañ la fay jëlee indi fa keneen ndax defoo ko loolu defe naa ne kon maanaam ñiy représenté yoon wi ci yeneen gox yi il faut ñu xoolaat ko bu fekkente ne bëgg nañoo mën a tasaara njàngale mi ci diplomatie bokk na ci li ñu mën a dimbale itam mooy ñu bi ay essence maanaam jokkalante ci wàllu aada ak cosaan wàllu xam-xam daal waaye itam di jokkalante ci àllu wàllu ay wisit maanaam seetante ndax gis nañu ñun fii ne ci misaal tey léeg-léeg gis nga Maroc ci misaal dañu ne may nañ seen may nañ sëñ bi ay bourse yoo xam dañ naan nañu jox ay imam ak yooyu ñu formé leen mais loolu maanaam rôle diplomatie la boo xam bu am solo ndax bu ñu leen formé dañuy defaat ñoom xalaat yoo xam bu ñu ñëwee maanaam xalaatu marocain dañ koy day bàyyi jeexit ñoom dañ koy indiwaale fii noonu ko marocain yi defee nag ñun tam noonu lañu ko waroon a amee am ñoo xam dañu naan lay xilaaf ci misaal day xëy na ak ak université yi ñuy tabax ak yooyu bu noppee loolu dana mën a jàppandi waaye ñoo xam dañuy di may bourse ne may nañ bourse kuréel sàngam ñu indi seeni doom fii ñu jàngal leen bu ko defee jàngalaale leen aada suñuy aada ak suñuy cosaan solaale ci ñoom valeur yoonu murid bu ko defee bu ñu demee dañu koy yóbbaale fañ nekk loolu mën ta ñàkk échange yooyu def naa ne lu ci am solo la te xëy na ñun dañuy yónnee suñu doom rek ñuy dem bu ñu ñëwee dañu indaale ay ndaw ndawaan yoo xam ne ñu ko indaale waaye ñun ñaare duñ duñ yóbbu daal loolu nag defe naa ne bunt la boo xam war nañ cee xoolaat bu baax a baax moo tax bourse yi ñuy mayante dañ ko war di jox leen bu ñu yam rek ñu ñuy may bourse suñuy doom di dem te ñoom duñ ñëw loolu defe naa am na solo lool moo tax xëy na université yi ñu tabax ak barabu jàngukaay bu pare loolu dana gën a yomb moo tax ñu ay ay ay mission yoo xam ne nii ci wàllu mission maanaam xam-xam moo leen tax a jóg lu am solo la ci réew yi boo gisee tey benn réew may may Sénégal téeméeri bus wala ñaar téeméeri bus mu wóor leen loolu valeuru ay milliards la bu xale yi jàngee pare ay milliards la ñuy def si ñoom te réew ma gañewut ci wàllu matière dara da lay woon loolu réew defu ngir yàlla amul réew benn réew ma koy def ngir yàlla dafa am lu ñu ci jub loolu ci diplomatie la bokk dafa am loo xam bu ñëwee ñoom moom nañu ñu séentu ñu def ko ci ñoom loolu nag ñun tam dañ ko war di jëfandikoo te sax moo ne benn benn yi nga xam dañuy ñëw fii nga xam ne ñoom ñooy coobarewu ñëw fii lu baree bari ñoom bu ñu ñëwee ñun duñ leen duñ yóbbaale dara ci ñun am na ay benn benn américain yoo xam ne ni dañ fiy indi seen i doom wala ay sud africain yoo xam ne ni dañuy jékki-jékki indi fi seen doom ngir bëgg mu yaroo waaye bu ñëwee ñun ci ñuy jëflanteeg ñoom fi la xaqiiqa dañuy mujj sax daanaka xaw ñoo maanaam ñu baal waaye dañuy xaw a xeeb ndax ni ñuy jëflanteeg ñoom ñun dañoo jàpp ne bu ñu gisee nit ku weex ku ñëw rek dañoo war a yéemu ci sëñ bi ay sëñ bi ñëpp dañu ñëw di mais duñu bàyyi xel ci ne kooku war na am lu ñu def ci moom loo xam ne nii bu delloo da koy yóbbaale war a mën tasaare njàngaleem sëñ bi ñu bari ñoom dañuy ñëw fi ba dellu rek bu ñu demee sax dootuñu fi ñëwati far ndax ci ni ñuy jëflante ñoom ak yenn doxali ni te loolu gis nañ ay kilifa yoo xam ñu ngi Sénégal gii ay barab bi jàngukaay la ñu yoo xam ne américain dong la ñu fay sol dañ leen di jàngal yoon yoon wañ nekk ñoom seeni xam-xam jàngal leen ko bu buñ ñibbee ñu ay doxaat la ñuy doon yoo xam ne nii dañuy woote jëme ci yoon woowu ñun nag loolu xëy na nañ ko war a exploiter des na xëy na nag ñàkk expérience ci fànn boobu moo koy waral waaye day gis koo xam ne ni fii lay ñëw nekk tubaab wala nekk américain wala yu mel noonu nga gis ko muy wëndeelu ci dëkk bi da nga xëy xëy doo toog gis te maanaam ñenn ñi sax doo xam dëgg-dëgg lañ fiy wut loolu loolu ci liñ ci war a kon xëy na mën nañ bi ne tubaab yi doon sonal wëlbatiku ñëw di ko topp xëy na man xëy na mën naa yéeme waaye defe naa loolu lu yéeme néew ci ndax ñoom yokkuñ dara murit gi ñu ci nekku doon duñu wàññi dara kon ñu jàpp ne ab tubaab mën naa yokk dara si wala mu koy wàññi dara kon bu ñu leen yéem bu ñu ñëwee nañ leen jàppee ay murit def leen teg ñoom ci yoon woo xam ne nii dañuy bàyyi ñoom jeexit bu ñu demee ñoom mën a jàllale njàngale moom beneen bi xam war nañoo ma dimbale te mooy nu fexe ba njàngale mi sëñ bi ñu bañ koo yamale ci ay jagle ay baatin rek dëgg la loolu kenn du ko weddi waaye war na noo wane beneen fas bu sëñ bi nga xam ne nii mooy nite gi côté côté nit dimension humaine bu sëñ bi dañ koo war a wane ndax loolu moom nañ mën a jaay ci bitti waaye baatin moom ku nekk xam na ne maanaam ak jagle la jagle nag kenn mënu koo jox li kenn daanaka borom rek moo koy jariñoo moo tax fexe bay wane beneen fas façade bu sëñ bi loolu am na ci solo lool loolu defe naa ne xaside sëñ bi yu baree bari sëñ bi daf ciy jàngale nu ñuy mën a régler ay problèmes yu baree bari mi ngi ci biir nu mën koo war a tas jàngale ko analise ko teg ko ci kanam àddina bi ne leen sëñ bi pro maanaam problème yi àddina bi jànkoonteel nangam sëñ la sëñ propose muy solution yu leer naññ mi ngi ci xaside yi waaye ñun dañuy jàpp rek ne danoo war toog rek ne sëñ bi daal baatin baatin dëgg la baatin bi kenn du ko werante waaye bu dee ci wàllum diplomatie moom loolu am na ci solo beneen bi tam mooy war na noo xam lan mooy autosuffisance léeg-léeg dégg ngay ne la sëñ bi amul lenn lu muy jëggaane sëñ bi am na lépp dëgg la xëy na loolu mënees na ko dégg waaye nit nit du doylu dafa am fànn boo xam doo ci doylu maanaam wàllu xam-xam xel xalaat kenn du ci doylu maanaam moom maanaam foo ko mën a jëlee rek jëlil indi da ngay ubbi ndax dañu wax ne bu fekkee ne ngaa gëm ne man soxlawuma kenn ñu bari dañ lay raw ndax ñu bari dañ ñëw ci yow jël li nga baax le lépp dem mbooleek lañ baax le bu ko defee yow nga toog ñoom lañ baax le doo ko jël te li yoon dëgg dëgg mooy dangay ngay jël di joxe loolu mooy àddina muy doxe loolu tam kon ñu bàyyi xel ci ne am na fànn yoo xam ne mën nañ koo jariñoo ci ñeneen loolu tam ñu ubbi ko ca di ko jël ci ñoom di ko jariñoo ci ñoom loolu mën naa nekk baax a baax am na ci beneen jéego boo xam ne dam defe naa dina ci am solo mooy am la ay visite officielle gis nañ ne ay président réew yu bare bari ñëw nañ Touba ñëw nañ fi déplacé wu seen bopp ñëw wis maanaam seet si xalif général des mourides loolu muy muy visite boo xam ne visite officielle la daanaka mën nañ ko tuddee noonu mais fi la xeexa doon na baax léeg-léeg ci misaal day xalif général des mourides ñu ne dafa jóg dem na Iran dafa seeti président wu Iran ndax ñëwoon na fi seet si fi ne kooku bu fa demoon tey accueil bi ñu koy dalal yi ñu koy dalal ndax visite officielle la day def lu bare bari ci iranais yi nañ koy dégg ak damaa jox Iran exemple rek waaye yeneen réew yu baree bari xay na nag euh, xalifa ni muy tuddee ni muy dëkkee maanaam yitte yu bari yeeg ñaare fu ñuy toll ci ak bu ñuy nekk ci xilaafa gi xëy na du leen may yenn yi waaye daal bunt la bunt la boo xam xay na bis du ñàkk ñu ñëw ñu am ñoo xam daañu mën a def lu mel noonu waaye nag ñu baree ba dañ fiy ñëw ñu fi ñëwee dañuy yéemu ci sëñ bi rek waaye relation yi duñ ko topp te moo ne président bi fi ñëw bu nekk waxtaan nag xalifa bi waxtaan naag mbooloo mu fi nekk nu waroon a topp relation yooyu di ko topp di ko topp ndax mu jur dara waaye daanaka bu ñëwee ba dem foofa lay yem loolu def naa ne war nañ cee gën a xalaataat kon tey ci misaal tey ñu ne woon bërëb sàngam tey la seen feet independance wala ñoo xam bis ba ñu am daal bu gën màgg ci ñoom ñu ne délégation yoonu murit mu ngi nii teew ci feet gi loolu def naa am na lu bare bëri loo xam ne nii mën na koo dëgëral ci relation yi nga xam ne nii séq nañ ko <clears throat> ku mel ne sëñ Murtada daana ci liggéey liggéey am solo ku mel ne sëñ Maamoor moom sëñ Murtada da ci liggéey liggéey ba am solo ndax réew yu bëree bëri ba fa demee dana contacter autorité yi fa nekk waxtaan ak ñoom ba yu baree bari mi ngi ubbi ko nga dégg ñun ne may nañ suñ tubaab bis sàngam barab sàngam may nañ ko fa bis am na Amérique am na Argentine am na Brésil am na dëkk yu baree bari ñu commencé loolu dañ ko war a gën a yaatal ba nga xam ne yooyu day tasaare njàngaleem sëñ bi ñooñu même bu ñu doon ay murid waaye nañ xam njàngaleem sëñ bi loolu dafay am lu muy jur ci ñun te bu ñu demee nag ba loolu sax mënta war na noo mën a jëfandikoo lu mel ay correspondance bindante ay lettre lettre sant lettre ndokkeel ak yu mel noonu ñu koy jokkalante délégation mën naa dem bu fekkente ne ku kilifa gu mag du man di dem yooyu yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne nii war nañ koo mën a jëfandikoo ngir tasaare njàngaleem sëñ bi sëf ci te sukkandikoo ci wàllum diplomatie kon sëñ mas masa sëñ Madiama loolu daal kon lenn la ci li nga xam waroon nañu koo jàllale ñu gis ne kon diplomatie am na bu taxawaay bu am solo bu mën a taxaw ci tasaare ay xalaat ak i gisin rawat na nag suñu millier bi nga xam ñun ci njàngaleem sëñ bi waaye daal lañ ciy tënk mooy gis nañ ne ne nu ko war a jëfandikoo dëgg-dëgg jëfandikoo guñ ko noonu loolu lam jur mooy lan mooy ne njàngaleem sëñ bi ni mu war a tasaaroo dëgg-dëgg par rapport ak importance bi mu am des na lu baree bari des na lu bare bari nun murid yi ñu ngi yokk bu baax a baax waaye ñun ci suñu biir nooy am ay njaboot njaboot gi di yokk waaye nag murid yu bees yoo xam ne nii seeni maam ak seeni baay mosu ñoo nekk murid li ciy dugg bëriwu na par rapport ñeneen ni ñu dugg ci yeneen kii demewu noonu te moo ne sax fi mu ne am na nit ñoo xam ne léegi ñi ngi fëkk ci xale murid yi di yóbbu ñoom am na dëkk yoo xam demee tey fii dañuy jëlee xale yi nga fay fekk ñu dugal leen ci barab tëj leen fa di leen jàngal loolu xam nañ ko am na barab yoo xam ñu ngi Sénégal te ñooñu bu ñu génnee ñooñu la ñuy topp loolu kon ñu bàyyi xel baax a baax ci ne loolu mi ngi am kon damaa jëleen lay kon léegi kon day mel ne kon ñu ngi fëkk ñun ay benn benn donte xëy na bëriwul lool kon daal war nañ koo mën a jëfandikoo ngir mën a gën a yàq njàngaleem sëñ te moo ne day jumtukaay yaa ngi mooy yaa ngi am nañu ko mën ci wàllu xel xalaat am nañu ko mën ci wàllu alal ji lim laaj lépp mi ngi fi xëy na nuñ koy nose nag ba mën koo jëfandikoo rek moom moo ci ne te moo ne gis nañ sëñ bi bu baax a baax moom ni mu daan jëfandikoo diplomatie ci tasaare njàngam gis nañ ci lu baree bare waaye nag ni ñu ko tënk rek ñu ko tënk foofu ci balee gi rek ne wane ne sëñ bi daal ak jagle la ak yu mel noonu loolu dëgg la waaye war na noo wane sëñ ci ni mën a régler problème yu baree bare te loolu defe naa ne inter maanaam inter maanaam médiation yi sëñ bi moo jë def nii rek ci xew-xew yi am ci biir Sénégal ak feneen defe naa loolu tegtal la ci ne maanaam sëñ bi mën naa nekk solution ci àddina ci lu baree bari ndax gis nañ bare bare barab yu baree bari ay jafe-jafe am fa de am ku jóge ci njàngaleem sëñ bi wala ci kilifteefu sëñ bi dem fa am lu mu fa def mu rek la fa problème yu bare bari ni mu amee ci biir réew mi kon loolu defe naa ne mën nañ ko fee jëfandikoo xëy na fi ñu koy wàccee suñu kàddu nag mooy jamono ji nekk ndam nag ñu tàqatle diggante gëm ak nangul la gëm la ak nangul la bokkuñu nit ki mën na laa nangul te du la gëm diplomatie nag ak nangul lay wut moo tax ñun suñ suñuy jéego dëgg-dëgg du caagir dañuy def nit ki murit waaye nan fexe ba nit ki nangul nu ne murid gi dafay war a nekk te dafa war a tasaaroo loolu bu ñu ko defee moom def na jéego mag a mag ci wàllum diplomatie noo ngi wàcc suñu kàddu di jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Fallou Bousso Xassane ñi ngi lay sant bu baax baax di la gërëm wax dëgg yàlla jataay ak waxtaan wi am gi solo foo ko takk passé na waxuma la rek waaye képp kuy teewlu di diglu da nga xam ne waxtaankat bi conférencier bi li ñu ko doon waxtaan loo jekku na ko te peeg na ko te it jottalee na ko ci anam goo xam ne jàpp naa ne ku fi teew rek da nga yëg ne am na ay jéego yoo xam ne yu nu war a yëkkatiwaat la yoo xam ne day aju ci wooteeb sëriñ bi kon dañu lay ñaanal yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar yal na yàlla kàttanal la li ci gën a yéeme sax mooy ñu baree bari bu ñuy waxtaan mën nañ def nii oralement rek di wax muy dem waaye moom li muy wax da koo bind yaxal ko ci ay këyit loolu nag lu am solo la ci ab waxtaankat kon daal sëñ Fall ñu amuñu ay commentaires yoo xam ne moom lañ ciy def donte amoon nañ ko waaye xëy na la jataay bi xat gu mu xat ak yit euh, ay kilifa teew nañ fi yoo xam ne jàpp nañ ne war nañ cee mën a yëkkati kàddu moo tax du ñu def lu dul sant la gërëm la sëñ Fallou wax dëgg yàlla ñun bugguñu woon sax nga jeexal ndax jataay bi am gu mu am solo ak xam-xame gu mu xam-xame wax dëgg yàlla kon ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla na la fi yàlla yàggal yàlla yàlla dëgëral na yàlla yàlla kàttanal la bu ko defee kon jataay bi ku nekk ne Serigne Ishaq mu Serigne Bachir teew na fi ak sëriñ jiili moom sëriñ Saalix bu ko defee incha allahu xam naa ne ngir njëkkante ak waxtu wi salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar